sell na sell boo xam ne. Mm-hmm. bëgguma ci jamono jooju ñu associer sama image ak image am. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye nañu defal ñaan bi. parce que xam naa ni bu ñaanee rek mu sotti. alhamdulilah ña ca des ñëpp sëñ Mourtala def na ay mbiram yónnee ñu andi. ah sëñ Fallou Chouaib nga ne moom it ñëpp xam nañ sama diggante moom ñëpp. ñëpp bay biram ma di a dawal xam na moom euh, daan toog ñaari weer wala yu demee te dew ma julli ajjuma foofa suñu paree añandoo mu ñaanal ma dem euh, suñu Abdul Muxtaar mhm. moom it ndaxtal na ko yónnee na ay mbir mhm. vraiment su ma naree lim. <laughs> <laughs> dëgg la damay te te loolu dafa am fu sore fu mu yegg ci man. Mhm. fu sore sore sore. Hmm. ndax yëg-yëg la yërmande la hmm. waaye boole ma si seen bii seen bopp hmm. moo tax ñu def loolu alhamdulilah essayé sax xam laajuñu essayé wuñu xam lu xew ak lu xewul mbir mi dafa ne kët na joon rek ñu yónni kon soo jëlee nag kaaw sëñ Abdou moom li may faral di wax rek man sëñ Abdou damaa am kersa sama diggante ak moom léegi dama koy làppatu dama koy làqatu keroog mi def déclaration yéeguma ko benn instant laa yéeg premier noonu rek ubbi rek gis mu ngi toog di wax mu tëjaat yéegaluma te bu mbir mi amee ba léegi defe naa coono gi mu ki daj sama bi mu jur daju ko ci léppam la bàyyi lépp lépp nekk ci loolu nag ku mu doyu dafa def ma xamul xamul lay doy dama ko xamul sëñ Abdou Mbacke hmm. man mënuma koo gërëm du doy danaan sama sëriñ la waaye ëpp na loolu mm. Mm. dafa ëpp loolu parce que kenn ku ne mun nga am sëriñ léeg-léeg nga dem seeti ko dëgg la am tuuti loo toog ak moom mu defal la ñaan nga dem wala nga dis ko say mbir dëgg la mm. waaye moom dafa dépassé loolu maanaam moom dafa dafa dafa am une complicité naturelle dëgg la naturelle dëgg la kon mm-hmm. euh, ma seedeel ko ko fii sëñ Abdou su dul woon sant gi sax mm-hmm. suñ ko jëlee ci nite gi rek. Hmm. nit la bu yàlla defaral bu ko. te loolu. unanimité la. Hmm. kër goo dem kër diine goo dem. Hmm. kuréel diine goo dem. bañ na ba daal euh, màggal daaru bi gis nga ni muy demee seen vision bi dafay ubbeeku ñëpp nga ngay dajale rek kon euh, ma seedeel leen ko yéen ñii jërëjëf ci daayira bi jërëjëf ni ah sëñ Abdou de mat na liñ ko doyee. Mm-hmm. su dee sëriñ dong dong dong. Mm-hmm. dañuy seet. mat mm-hmm. na ko. alhamdulilah. waaw parce que lii la ñuy doyee sëriñ. alhamdulilah moom wax na ko day doore doore ko man. dëgg la dëgg la. ndax bi Sénégal di tàng 2009 ak ñoom seen. ñi fi yor tey dëkk bi di di tëb yëpp. Eh, këram lañ doon def. wala ñu woo ko ne ko waxal ci mbir demal def lii.